ñu ngi leen nuyu di leen jaar yéen ñi suivre encore ñu war a ñëw ci benn vidéo wax ci Andy Diouf bi nga xam ne mi ngi nekk Lens nekk joueur boo xam ne football na Espoir France nekk ko xam ne franco Sénégal la mën naa football Sénégal mën na football France mu nekk joueur boo xam ne ku am talent la ku mën football la mais joueur la boo xam ne moom ci ay waxam nekkul koo xam ne dafa bañ Sénégal bu ko Sénégal nangoon woo ci ah day ñëw football fi nga xam ne mooy Sénégal te pare na pour football Sénégal ñu gis nag Aliou Cissé ak Estefan ñu ko négligé jéem a def benn jéego am ku mel na Aliou Diouf Andy Diouf ak ku mel na ah, Habib Diarra Habib Diarra sa ëllëg naa ci ñu daan moom benn vidéo boo xam ne spécial pour wax leen mooy kan ak temps ak expression mais loolu ci dégg mooy Sénégal kaan bi jeex na ñu éliminé ñu war nañoo paraat kan deux mille vingt cinq. balaa booba war nañoo renforcer milieu terrain bi attaque bi défense bi ci xale yoo xam ne amaguñ vingt vingt trois ans. Andy Diouf vingt deux ans foo takk man footballam wees na ko man balaw pay mën a sa nekk joueur boo xam ne physique bi dafa foo takk physique am wees na ko mental bi te objectif mooy toujours moom joueur bu war a dafa gëm gañaal kon nag man jot ci saaru booy yomb na dama waxtaan ak xale bi su nag man sama objectif mooy gañaal kan deux vingt cinq kon équipe dem ba objectif pour gagner ak trophée bii ko bu ndaw te boo ñëwee Sénégal ma nga am pour at ci kanam gagner nga gagner ñaari kan sax Sénégal guddi fu baax la bu ñetteel ba sama objectif mooy ma ko na egg sax ba final ndax Maroc gi egg final du ma moroom moom ay euh, baat yoo xam ne baat yu convaincant la ma mën ko convaincre mu ñëw ndax su boobaa dana xam ne man dinaa dem Sénégal ndax France bi boo fi nekkoon du su ma demee Sénégal man na fa war coupe de nation bu ma ko jëlee moo nga jël coupe d'Europe ñooy am soo fa jógee dem coupe du monde même bu ma ko jël sa egg fa demi final wala quart de final wala sax daa nekk benn euh, exploit boo xam ne exploit bu réeré la ndax boo xoolee coupe du monde chaque par quatre ans bu ne sa carrière lu mu gudd gudd boo fekkee ñaari coupe du monde wala ñett mën ngaa jeexal wala boo jeexul am xale yu gën a pare su ma ngay foo ci këram mi équipe nationale du am sar pour pour ñu lay woo kon daal Andy pour nga jot pour man lu yombu la ci kaw na ngay waxe ak moom